mbokk internet yi ñuy bàyyi xel ci Tawfekh Production di daw ci YouTube bi euh, ni ñu ko baaxoo defee seen émission entretien tey jii nag suñu numéro bi ñu ngi ko jaglele Ahmed Suzanne Camara euh, nekk ku ñu daan ci jéem politique yi euh, ginnaaw bi ñu nekkee jàngalekat bokk na ci ñu ci parti Alliance pour la République bokk ci kuréel googee di ay jàngalekat. Euh, tey ji ñu nar a waxtaan la jëm ci actualité politique fii ci réewu Sénégal rawatina ay jëmante élection présidentielle atum waaw maa lay maa ngi lay fay Abdou Lay Ndiaye. Mhm. alors donc di kontaan aussi di nekk seen gan tey ci ci émission bi. Mhm. waaw donc di nuyu ñi seetaan ñëpp euh, di nuyu aussi sama waa parti président Macky Sall jiite ko. di nuyu aussi ñu bokk ci réseau des enseignants jàngalekat yi bokk APR yëpp. Mm-hmm. ak ci Benno Bokk Yaakaar bien entendu. Mm-hmm. Euh, Youssou Touré aussi jiite jàngalekatu APR yi. Mm-hmm. donc moom it maa ngi koy nuyu ak njabootam. waaw di kontaan lool vraiment comme ni ma ko waxee léegi rek. Ahmed Suzanne Camara ñu yàgg koo dégg ci lan politique yi nekkoon ko amoon xadar ñëpp ràññeeku la woon ci géew bi ci ku dal ci président Moutioub wala yeneen ak yeneen tekk tekkaaral gi lu ko waral. waaw bon je sais pas ndax euh, euh, ndax euh, xamoon sax ne attiré na attention wu attiré na yéen seen attention mais man aussi ni may ni ma koy sentir rek noonu laa koy noonu laa koy defee selon l'actualité et tout ça mais aussi c'est vrai que xadar bi aussi xëy na peut-être wàññeeku na tuuti. ci ci plateau bi mais xadar bi moom ci plateau yi rek la yem ci rajo beeg télé bi mais dans la vie courante euh, bëriwuma fitna waaw du xeex du ma xuloo ak yooyu mais mais mais mais mais mais mais euh, c'est vrai que aussi nit day màgg. waaw du loo nekk rek tout le temps rek nga nga continuer ci ñu xamee la ko et tout ça mais tey laa gën a sawar aussi défendre le président défendre son bilan euh, mais xëy na ci beneen fan na maanaam ci ay argument waaw que di xuloo ak yooyu xeex xeex sax def ma ko parce que dañu tëb dóor ma waaw donc man duma xeex duma xuloo aussi ci biti waaw mais ci tele bi ak rajo bi euh, daal vraiment dinaa sawar naa daal défendre Euh, wane sama engagement sama fidélité sama loyauté au président Macky Sall. doo xuloo doo xeex mais dañu ràññeek léegi xadar bi bokk na ci argument yi ngay wax sànq mais mhm. ay propos yoo xam ne tàng boo ko yëkkatee rek day gars yi am na ñuy trembler ñoo xam ne. Euh, sur le coup dinañ euh, euh, agité dinañ am lu ñu yëg seen bopp. moom c'est moom c'est vrai waaw loolu nag man damay ne pourtant du loo xam ne sax dama koy préparé ne par exemple buñ ma invité lii laay wax ak yooyu. Mm-hmm. mais xam naa ne loolu ci man la lu yàlla aussi mooy am yoo xam ne moo koy def ci nit. Mm-hmm. ak yooyu bokk de ce fait donc comme ni ma la ko waxee rek li ma yëg rek laay laay génne laay laay wane. Mm-hmm. c'est vrai que tontu bi daan na daan na daan na retentir mais aussi. Euh, agression bi aussi tontu boo gis rek ak ak agression bi mu tolloon par exemple tey ñun bu ñu attaqué donc euh, li ñuy répondre aussi li ñuy contre attaqué il faut mu tolloog attaque bi wala mu romb attaque bi hmm. loolu moo logique donc ku ñu ku ñu ku ñu gàjji ñu xuri la hmm. genre boobu la rek ak yooyu e daan naa dégg ñuy wax ne benn partie politique bu mag sax fii Sénégal ñu ñuy ah, ñi may wax ne ma ah, ñoom saa yu ñu defee point de presse mm-hmm. ñu ngi wax ne Amar Suzanne xam naa mooy njëkk tontu. Mm-hmm. waaw donc de ce fait ñoom dañ ma doon xaar lu ñu mënti wax rek dañ may xaar donc parce que. Euh, ku tudd. ku tuddaan président ku tudd ak ku tuddaan président Macky Sall loolu laay loolu laay bañ. buzz tamit nit ñi gën a xam ko Ousmane Camara euh, Ahmed Sonko nag jégal ma ndax man sax ba bay ñëw am na ñoo xam ne boo leen waxee Ousmane Sonko la donte mosu koo gis mais buñ déggati rek seen xel dem ci lu bëri. waaw est-ce que du tamit buzz si wàllu politique. dina jaay sa image wala yooyu. non non man moom euh, wutuma buzz bi ah honnêtement. Mm-hmm. Euh, damay je je le fais naturellement. Mm-hmm. au contraire sax man je me dis que ne siiw nit ñi bëgg nañ ko bon ku nekk politicien. soxla nga siiw euh, syndicat soxla nga siiw bu fekkee da nga attan pour jiite ñi xam la et mais euh, dama ne siiw sax du jaami borom ndax euh, sama siiw ak sama proximité ak président Macky Sall mu ngi may yóbboo ay tolof tolof yu bari nga xam ne donc lu lu am ci man lu baax lu bon ñu bind ko lu amul ci man lu bon ñu bind ko xam nga donc de ce fait des fois ça fait mal à famille ñu wax ci président entretien di seen émission boo xamante nag Tawfekh Production moo leen ko indil di dalal ay kàngam yoo xamante nag ñoo xam ñu nekk ci làngu politique yi wala ci wàllum koom-koom bi wala éducation soxal na actualité réew mi ak lépp lu jëm ci wàllum rek li suqali réew mi loole nag mu nekk loo xamante ni day am ci seen Tawfekh Production mu nekk émission boo xam ne képp ku mu yitteel mën nga woote ci numéro téléphone yi li 77 792 50 43 wala boog nga jël numéro téléphone bi li 77 251 04 05 mbokk yi émission baa ngi képp ku mu itteel nag bul ko wute te mbokki internet yi bu leen ko tardé benn yoon ndax lépp lu jëm ci wàllum décryptage jàngal leen o lépp lu soxal actualité réew mi dañ ko ci waxtaane ci biir émission bi direct entretien ci Tawfekh Production